Assalamu chers collègues, Monsieur le ministre, Monsieur le ministre de la Pêche, Monsieur Papsa Nyambay, Manglinu, Monsieur le directeur du budget, Monsieur le directeur du port Montagassi, mon frère, Manglinu, de la Djorsa Watuay, de la Fadlo Saligé, du port de Machallah, Finko Djele et Finko Yoboko Monsieur le ministre, Aoudeglo Boubach, daw déglu bu baax dama ñëw indi la commune de Yoff di nuyu bu baax xalif général de Layènes di nuyu bu baax waa Cambérène di nuyu waa Ngor Wakaam Tànk su ma ne Tànk Ngor Wakaam Yoff la pour ci ñu ko xamul. monsieur le ministre gis naa ci sa rapport euh, li ma ñëwoon wax la ci Yoff Ngor Wakaam Yoff dégg nga ko en compte ci sa rapport ma ciy kontaan bu baax ndax gis naa ne dama la waxoon ne nga dimbali ñu ci nettoyer ñu fond marin bi. Euh, gis naa ni dama la waxoon tamit ci li nga xam ne mooy pêcheurs yu yi ak pêcheurs Ngor Wakaam yoo fi nga jàppale leen ci seemi pour ñu mën a am fu ñuy fajoo ndax léeg-léeg situation day xaw a métti foofu ma la ciy jaajëfal bu baax. di la santaat encore ci waa barke Barkédji gis naa ni li ma la waxoon ne amuñu géej wax dëgg yàlla loolu tenir nga ko encontre mu ngi ñaan nga jàpp ci mu gaaw a gaaw ndax ñu mën a am aquaculture. beneen bi gis naa ci tamit ji mais des na dolli ak yang yang war xoox aussi nga bàyyi ko xel bu baax a baax. monsieur le ministre di la ñaan aussi gilet gilet de sauvetage yi ñu la waxoon ay Yoff ñëw na mais bariwul yokk ko te tamit dafa cher dañ bëgg nga subventionné waat ko mu gën a wàcc monsieur le ministre waa Yoff nee nañ nga taxawu leen bu baax a baax ndax gis nañ ni temps yi yëpp xale yi dañuy nekk rek ci géej gi di dem ndax li li ñu ñàkk bari na lool may jaale waa Sénégal yëpp di masawu ñëpp ndax ku ne xam ne ni ñàkk dafa metti waaye monsieur ministre jàpp nañ ni waa Yoff nee nañ am na ay mag ñi nga xam ne nekk yàggal nañ di pêche ñi nga xam ne dañoo dem ba pêche pêche tuñ ñoom am nañ ci solution ñu ngi lay ñaan nga wàcc si Yoff wax ak ñoom su ko defee dañ mën a dimbali wax ak yow fu ñu mën a dem ci géej gi di mën a waxante xale yi encadre leen ndax yow nag ci sa dal ak sa mbaax xam nañ ni boo wàccee ci terrain bi waxtaan ak xale yi solution dina am kon foofu ñu ngi la ciy bàyyiloo xel monsieur ñu lay waxaat ne la euh, suñu kanaal kanaal bi nekk yoof jooy naa ko fi ba tàyyi ñu ngi lay ñaan parce que tamit yaay ministre bi nga xam ne yaa yor kaaraange géej gi ça plus de vingt ans ñu ngi dund lu metti dañuy jël eaux usées yi ak li nga xam ne mooy ndox mu bon mi dafa jaxasoo te loolu day sotti ci géej gi ba tax na léegi xale yi nga xam dañ daan nekkaan ci mbaalan mi plus de deux cent personnes ñoo daan ñëw di ci am dépense borom kër yi yaakaar ci jigéen ñi yaakaar ci loolu tax na kenn gisatul jën moo tax ñu doon ñaan foofu est-ce que doo ñu jàppale tëj géej gi 4 mois ndax jën mën a amaat. monsieur le ministre kañ ngay ñëw taxawuñ ñu def campagne de ma géej gi yëpp Ngor Wakaam Yoff ku ne xam na ne ñu ngi nettoyé tout le temps mais tamit foofu maa ngi ñaan di ñaax sama mbokku jigéen yi ñi nga xam ne dañuy yor seen ay mbari nañu koy téye seen biir kër yi. su oto mbalit bi ñëwee baax na su ñëwul nañu koy segg bu ñu ko seggee def ci doomu taal def ko seen biir kër yi dina toog ñetti fan du xeeñ ndax tout le temps nit ñaa ngi nettoyé moo tax foofu maa ngi jaajëf lu baax waa association bàyyi lay baax na fu ñu toll ñu ngi nekk di nettoyé géej gi mon frère Majib Samb aussi ma koy sant ci baax ak taxawaayam ci géej gi ku ne xam ne moom loolu rek la bëgg pour nettoiement moo tax foofu dañuy doon ñaan nga mën a jàppale ñu ñu mën a def campagne campagne de nettoiement boobu Euh, financement wu femmes yi ñu la waxoon ci Ngor Wakaam Yoof tamit gis naa ne boole nga ko ci waaye lu loo gaaw rek ñu jël ndax euh, ku ne xam ne jigéen yu euh, tànk Ngor Wakaam Yoof dañoo jàmbaar moo tax maa ngi leen di jaajëfal ndax góor ñi ku nekk dangay ngay xawal sa borom kër dina di yëkkati 5000 francs pour dépense kër nga war a dépense vingt mille waaye jaaraama jigéen ñi dinañ góor góorgóorlu fexe ba li nga leen jox du doy danañ ko yokk ndax lan takku buñu xeye fajar ñu nga ci géej ga ñu nga ca njaay ma ñu nga ci lu nekk moo ngi leen xel bu baax nga mën leen taxawu ñu mën am financement fofu ndax mëna dimbali goor ñi ci kër yi ndax jigen moy société te jigen ñi ñom ñoo tax lepp mëna sotti suñu démé tay ba suñu doomi mag mëna nek lu nek yaay la motax fofu ngi yaay yépp di may sama yaay amna tam caam mom mi nga xamne mom tamit ma sha allah jigen ji mën goor la bi mu toogee ba jogut yaay boy lay ziar bu baax di nuyu wa barké yépp bu baax baax bi ci des monsieur le ministre maa ngi ñëpp di gërëm ñëpp waaye di sant bu baax président ci mbaax geeg ci jal bi taxawaay bi président Mamadou Diallo maa ngi lay nuyu ku ne xam ne yow tamit référence nga ndax wax dëgg yàlla ba nga diggee assemblée léegi yaa ngi xool di wax lu baax di def lu baax merci beaucoup maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp